aus billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan di nu déglu ci sunu émission bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale fii ci sunu site bi ñuy wax 24 actu tey jii ñu dellu siwaat ci ni ko baaxoo def ginnaaw bu nu ñaanalee Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di siyaare di ñaanal alxaaji abdul fata mbàkke mu sëriñ fallu yàlla may ko fannu mu gudd lool ak wér di siyaare baax ak ñaanal sëriñ daam atta mbàkke xalifa seex ibrahima mbàkke ibnu xaadim rasul mbokk yi tey dañoo dellu si ngir fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moo xewoon fii ci Touba mu doon coow loo xamante ni dafa amoon fii ci dëkk bu sell bi loola nag ñu war cee def benn jàngat boo xamante ni ginnaaw bu nu tuubalee Serigne sëriñ Serigne taxa ndax lépp loo xamante nii day tax euh, buy wax feeñ ci wax ji wala buy wax ñu yëg ni aw tàngoor àll dukkal na ko joo xamante ni mu ngi sababoo ci taalibe yi. loola ñu ngi ko koy jéggalu bu baax a baax a baax a baax te moom de ku bëgg taalibe yi la ku leen yéene aw yiw bokk na ci waxam la muy wax li ma yéene sama bopp rek laa leen yéene waaye nag wax nañu dëkk bii tamit nga xam ne moo di Touba bi mu toogee xamal nañu képp koo xamante ni kuy ñëw ci dëkk bi na la sëriñ bi indi ak jëmmi dëkk bi nga xam ne boo fi toogee te nekk fi ni nga fi war a nekkee moom xam na ne sa àdduna dina jag sa àllaaxira dina jag loolu wax nañu ko ba tàyyi xale yi jógoon nag wax dëgg si yàlla di nga am ñeewante yenn saa sa bët day xong cur yenn saa nga ànd ak wenn mettit ndax li leen daloon ba tax ñuy manifester du jëmmi dëkk bi moo leen metti dañ fee gis lu leen metti wala dañ fee doxaleek ñoom lu leen metti wala dara te di rek li daloon ñépp ba tax ñépp jóg te ña doon jóg ci dëkk yan doon jóge ñépp ay xale lan moo tax xale yi nekk fii tamit euh, doon leen feelu rekk li ñuy wax na inna eh, inna tuyo inna tuyoora eh, nu ko waxee li ñuy wax ne eh, arawaaxu junnoodul mu jànnada maanaam lu askanoonte lu nekk rek dañuy feeloonte li askanoonte lu nekk picc yi ak picc yi ñooy ànd mag ñi ak mag mag ñi ñooy ànd moo tax bi mu jógee dereti ndaw baaxoo baax ak yëngutu ñu jóg seen xel gëlëm ñu jóg li ko taxoon ñëpp di ko def it mooy ki leen ko tegoon mooy kenn la mooy lii am di balaa bu wàcc balaa boobu njiit yi ko jiite doon ci wax ak ñoom di leen wax ne leen balaa bi am na ñii leen koy moytoo liyee tax ñu jël ay engagement yu bette yu gaaw yoo xamante yu gaaw la ne nit ñi màggalu Kazu Rajab jamono yooyu soriwul màggal gi sax taxul nit ñi ñëw waaye am na benn benn yoo xamante ni fi leen dëkkoon doon waajal ramadaan ak koor gi ngir noonu lan baaxoo seen njaboot yàlla dogal bi ñuy kii ci leen jël décret boo xamante ni kenn mënatut génn fi ngay dem mënatut a loola bi ñu ci tegee ab diir ñu ne léegi kenn dootul mënatee génnati li ko dalee huit ba six heures du matin génn xale yi nekk ci coono yooyu kenn mënatut a génn benn région ak région Touba sax ñu jëlaloon leen ci jëlin wu metti ne ñoom mënunoo génn département bi ñoom liñ leen may bariwul ndax waa Touba loola nag metti lool ci ñoom secteurs yi tamit gis ngeen ne safoor yi ak yu bari dematul woon manifestation bii nag doo xam lan mooy sabab bi waaye doo ci mën a bañ a génn safoor si tamit xam ngeen ne seen toogaay metti na te doon nañ yëngu ñoom nag dañuy secteur boo xamante ni bu mànkoo lan bu am doole boo xamante ni seen mobilisation gis ngeen fi ba tàyyi ñu xëy na dañuy garaw benn oto du dem benn du dikk te saa buñ ko defee dañ ci génn ndax mbooloo lan moo xam mu déggoo moo xam jéggi na dayoo boo demoon tey ci ñooñu jàngalekat yi noonu lan mel danoo mobiliser ba nak takkoo nekk benn buum élèves yi jàng tamit noonu lan déggoo déggoo goo xam ne gu jéggi daya la ñooña nag gis nañ ne bi ñuy manifesté wu kara ci Touba ñu ngi ko tàmbalee ci wetu garage su Dakar bi garage bu mujj te foofay tamit ku nekk xam na ne chauffeur so ñoo fa nekk ak xale yi ñoo fa nekk danoo jëkk-jëkk rek génn baare tëli bi xale yi ñëpp jóg songu leen bin leen songee noonu tamit mu doon su 9 ci suba ba ay 11 midi xale yi di yëngu ci dëkk bi kenn àggewu ko sëriñ bi ba ca guddi ga biñ jugaatee tamit ñu jugaat daal di jëlaat seeni matuwaay jógaat ci guddi gi. bi nu jógaatee ci guddi gi tamit la ca xew mooy sëriñ bi ca la ñuy soog a àgg ca moom wax ko ko sëriñ bi ñëwal boppam daal di def déclaration déclaration bu gàtt bu metti boo xamante ni ku ko dégg di nga xam ne sëriñ bi Euh, waxee na àll bu kii ndax la mu wax sama mbokki taalibe yi sama mbokki taalibe yi sama mbokki taalibe yi loola boo xamee kàddu di nga xam xamoo sëñ bi day artu xale yi da leen di artu baax na baax na wala daf leen a ñeewante ba xam ne li ñuy def ndax ba mu waxee dana leen dem leen ba suba ma xam li ko waral ak li ko sabab ndax li daawut am lu daawut am waaye foofa la nga ciy déggee xale yi dafa mel ni bi sëriñ bi waxee dafa mel ni sirru bu nu yoroon ak naqar bu nu yoroon dafa sippi dafa sippeeku te guddi googu bu fekkoon ne sëriñ bi yëkkatiwut kàddoom leneen la ñuy nettali ci Touba waaye du nettali ne toj nañ fee wala yàq nañ béréb waaye lu bare bare bare ci dëkk bi mooy yàqu ndax du amul kenn ku leen mënoon a téye du ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre yi ñoo leen mënoon a téye ndax ñoom néewoon nañ ci doole te kenn mbooloo mu toll nit kenn mën leen a téye mbooloo moo xamante ni xamoo kañ la ñuy jóg xamoo fan la ñuy jóge xamoo nan la ñuy jóge kooku kenn mënu leen ki yaa nga jëm gaaraasu daaru ñu jóge gaaraasu Dakar nga jóge gaaraasu Dakar nekk garasu Dakar ñu nekk ci gaaraasu Daara Jolof foofu da ngaa xam nit ñi fan la ñuy jóge xanaa nit ñi nga mën a artu ak mën leen a téye mooy ñi nga xam fi ñu jóge loolu bi mu amee au lieu ci suba gi ñi jege sëriñ bi wax ko te loola kin ciy njëkk a def rapport mooy maire bi maire bi nga xam ne dañ koo dénk dëkk bi te dëkk bi mooy laaj patente yi mooy laaj li nga xam ne moo di taxi yi lépp lu fi nekk mooy laaj oto bu fiy dugg sa taksi yi moom nga koy jaarale ci seen loxo loolu fiy fay ñoom nga koy jaarale kon ñoom la sëriñ bi jox dëkk bi ngir teg leen ko seen ñooy laaj lemp yi ñooy laaj lépp ak chef de village yi nga xam ne tamit ku ci nekk xam na ne lu xew ci koñ benn koñ la xewee koñ ba mu xew am na ko fa nekk comme responsable responsable ba mooy chef de village ba moom fa teg ci wàllu àdduna wàllu àdduna woowu nag bi mu yëngoo ñoom chef de village yooyu kenn ku ci def benn alerte amut wala benn déclaration maire bi ba jonni tey fii ñuy wax déggoo ci benn déclaration bu mu def kon moom te moom lañ dénk dëkk bi moo waroon a jël teel a jël responsabilité même bu mënut àgg ci sëriñ ba war naa jël déclaration boo xam ñëpp dana xam ne maire jël na responsabilité am ci li xew seetaanu ko noppi ci ndax noppi ak noppi dafa mel ne dangay saxal mbir mi da ngay saxal da saxal moo tax saa bu wax jotee da nga war a wax te xale yi danoo laajoon ku leen jege ndax jamono yooyu wàllu communication li taxoon ñu toog ndax ko xam ñetti weer toog nga ko ñenn ñi dikkoon mënunoo dellu ñenn ñi nga xam ne dañoo war a joxe dépasse ñenn ñi nga xam ne ñoo war a yore seen i waajur war a nangam chauffeur si war a daw lu ci nekk doon jaaxle yu metti état bi digoon leen ne leen dinañ leen dimbalee lu ngeen mën a tooge loola dara ñëwu ci ne leen toog leen seen i kër bu leen demati ñu jëkki-jëkki ñu ne leen raison yi ngeen doon dem bu ci kenn demati ci benn raison ba ci Mbàkke moo gën a metti la Touba dina leen département bi bu leen ko génn bi ñuy wax ñaari raison yi raison kees lan wax ak raison kii ñu ne ñoom ñaar bu nu kii bokk ak alerte bu metti boo xamante ni fitna yu metti fitna balaa bi waaye fitna condition yi nga xam ne doon nañ ko tege condition yoo xamante ni yow bu 8 ngay tëdd 6 heures du ngay soog a génn booy génn ñu ne la da takk masque da nga def nangam bul joxe loxo bul joxe te moyen yooyu yëpp amul benn moyen buñ la ci dimbalee mooy yooyu yëpp yow yaa ko war a jël ba ci alerte yu mujj yi nga xam ne dégg nañ ko ci ministre intérieur dafa wax ne képp koo xamante ni teg koo ko dinañ ci vingt mille francs dinañ ko di ko fay alamaan loolu metti la yëngal ñëpp yëngal leen lan doon def ñoom du waa Tuuba lan ko doon def wala sëriñ bi lan ñàkk kii xale ya ko doon def Ndakaaru wala ya ko doon def ci yeneen réew boo leen comparé woon di nga xam ne ñaari xale yi bokkunu ay kii ay xale lan waaye bokkuñu bëtin yu ñuy xool xale yooye ku ca nekk bu samedi jotee yaa nga doon baale yaa nga dem ca boit de nuit yi wala nangam ñii bu àjjuma jotee ñoom ñépp nga gis leen ñu summi sol seeni tëni seeni mbubbi daayira di daayira daayira yooyu fu ñu ko jëmee mooy sëriñ bii ci leen ko jëmee woon muy sëñ taxaa te xale yi de daanaka xamuñu ñoo doon def manifestation sëñ taxaa bokk na boo leen laajoon koo gën a xam ci xalifa sëñ Tuubaa yi dañ lay wax ne sëñ Muntaxaa lan xam ndax bi nu gimmee rek ñoom sëñ Muntaxaa lan xam mu nekk fi ñu ëmbal ko cofeel goo xamante ni gu jéggi dayo la ba mu toog nii kon sëñ Muntaxaa du toog toogaayam bu jekk bu rafet bu neex bi ñoom ñu koy xajamal xajamalul ñu yëfi sëriñ bi ñàkku nu war may tamit dëkk bi c'est-à-dire njuum te dal na leen ñi leen doon informé tamit ba ci ñun doon waxtaanal da ngay toog ñu waxtaan ñoom ñu gëmloo ne leen lii mën ngeen a dem liggéeyi dara amul dara nangam communication bi jóge ci ñoom war a ñëw ci ñoom loolu amut bu ko defee loolu it aw mettit la nit ki bu fekkee ne dafa yëg ne nag day dee benn yoon nag du dee ci rondalam loolu li ma ci bëgg a wax mooy mettit wi ñu doon dund ginnaaw dañ koy dund mu nar a metti danañ génn ci seeni kër dafa am ku am wax lu am solo dafa wax ne gaynde gi bu fekkee ne dafa dikk ci pénc mi tàq waa dëkk bi fekk leen ñu toog ci pénc mi mu dàq leen ku ci nekk daw dugg sa biir kër gaynde gi bu dikkee ci pénc mi bu dàqee ñëpp dugg seen kër li mu war a def mooy dafa war a daw génnaat dem delluwaat waaye bu bëggee toog ci pénc mi xaar fi nit ñi nag toog bañ a dem bu nit ñi génnaatee nag fitnaay am ndax ku nekk la ngay génn sa néeg mooy euh, raw la nga xam ne moom la la doon dàqe bu ko defee loolu li nga ciy déggee mooy bi sëriñ bi waxee ñoom ñëpp danoo bàyyi kon état bi ak ñëpp war na ñi doon wax naa sëriñ si euh, ndigal amut ndigal amut xam ngeen ne guddi googu bu fekkoon ne li leen di wax weddi na weddi na seen waa ji ndigal am na bu ndigal amut woon xale yi danoo ànd ak féexte bi sëriñ bi ne nan bàyyi rek ñoom ñépp ku ci nekk gis nga ne mu bàyyee yam yoroon ne ndigal jot na kon ndigalu sëriñ bi xale waa Touba ndigalu sëriñ bi la ñuy déglu kon bu fekkoon ne xale yi waxoon nañ leen ne leen mbir sàngam xewoon na wala ñu wax leen ñu mënoon a am accès ca sëñ ba kon loolu leen dal du leen dal Touba nag yàgg na am ay mettit yu mel nii yoo xamante ni dafa am xanaa leen ci reprocher rek mooy xale yi def nañ ay njuumte doon nañ yàq yoo xamante ni leen doon yàq lépp dara jëru ci woon yàq waaye ay njuumte la yoo xam ne yu am waaye seetlu nañ njuumte li ci gën a rëy mooy oto ambulance bi nga xam ne doon nañ ko yàq oto ambulance loolu ñi xam dëgg-dëgg ak lu gër metti metti ambulance ak journaliste yi kenn du leen def dara. ndax tey ñoom ñoo ñu doon wax doon doon def manifestation képp ku ca blessé woon wala accident dal la fa oto sa ambulance boobu moo lay jël si léegi li la war a jël si ngir yóbbu la ngir ñu faji la wala nga ñu sawe la def la sawetaas bu fekkee ne loola yàq nga ko ba mënu jël bu la ca loola daloon te ñoom li doon def yàllaa ci def sutura waaye lu nekk mënoon a xew kon nit ñi nan ñu nit li ñu war a jàppaat mooy état bi na gën a xam ne suñ muntaxaa mooy sunu kilifa na xam ne suñ muntaxaa mooy kilifa taalibe yi baat bu nu bëgg ci taalibe yi nan ko jaar ci moom di ko wax mu xam ko xam li xew lépp ndax xamu ko te ba mu jógee bi mu ñëwee ca suba ga di waxaat dafa wax ne eh, maa ngi indi ay kàddu yoo xam ne kàddu yu nasihaatal na kàddu yu nasiha la diinu nasiha loola mooy wane ne yërmande jéggal na leen jéggal na leen af fu am na ndax ba mu waxee tamit dafa wax ne ñàkk xam kàddu yi li amoon démb ñàkk xam rek la ñàkk xam ku xamul nag dañ koo war a xamal loole lépp nag lii mbiru seytaane la mu fi am te jàpp nañ ne ñi ko defoon ñi ngi tuub te jàpp nañ ne lii dootut amati ci dëkk bi mukk mukk mukk mukk dootut fi amati ndax lii ko sababoon ku ci nekk xam na ne euh, mbir la moo xamante ni dafa agsi woon ci ñëpp ku ci nekk foo mën a nekk ak loo mën a am dafa dikkoon ba jege la jege woo xam ne di la mettital mettitu wax bis bu nekk nga digg ay kàddu ba ci bërk démb rek li ngay yëg ne communication gouvernement bi am na lu ci doon des mooy barki démb ku ni wax Seydou Gueye génn nee ne bin nee ko manifestation yi xale yi doon def ak buur wi xanaa moo tax ñu mujj wàcce euh, yolomal yëf yi mu ne déedéet du du yëf du yënguy xale yi wala yënguy nit ñi moo tax gouvernement li mu bëgg a def ñoom état bi dañoo war a yëg ne gournement bi xale yi ñoo leen fi tegoon ñoo leen doon dem woteel nit ñi ñoo leen doon wateel kon nit ñi bu ñu demee ba gis ne lii baaxut ci ñoom ñu taxaw di ko kaas dañ caa war a deltu ginnaaw waaye bu fekkee ne ñoom yëgunu askan wi lijjantiwunu jafe-jafe yi askan wi delsi loolu bokk na ci communication boo xam lu nekk la mën a jur lu nekk la mën a kii kon nit ñi nga xam ne ñoo taxoon nga falu ñoo la teg fee nga teg ñoo tax nga doon li nga doon bu nu demee ba am naqar loo xam ne dañ leen koo teg tamuy naqar woo xamante nii wu metti la woo xamante nii ñoom dañ cee bëgg a génn nga ñu ne deltu nañ ci ginnaaw la war a am mooy ñoom kat ñoonu fi tegoon bi ñu demee ba xam na ni lii ne metti na ci ñoom moo tax ñu defal leen li nu bëgg li nu bëgg nag benn mën nga leen wax na leen danse ngi ci waaye nag teewut ñu defal leen ko ndax ginnaaw danse boobu ñoom liñ leen bëggaloon jàmm la te ñoom xamuñu loolu kon nañ leen kii waaye lu mën a am rek li ñu doon wax daal mooy képp ko wax ne ndigal amut te baat boobu ñu gën cee dëgër mooy démb juum nga te euh, ñi ko doon wax jàpp naa ne rëccu nañ ko ku leen ko laajoon tey ne leen ndax ndigal am na dañ xam ne ndigal am na ndax ñoom sëriñ bi lan doon déglu ci seen lépp moom lañ doon déglu te sëriñ bi benn kàddu la wax boo xamante ni matul dara ñu àndandoo te jamono yooyu loolu xew ci suba gi la xew ñu xëy ci ba sonn mënaluñ leen dara ca guddi ga ñëwaat mënaluñ leen dara te guddi googu yàlla ak jëmmi sëriñ Tuubaa ak baaxam moo tax dëkk bi mel nii mu mel nga xam ne li fi yàqu ko néew Euh, xañ na ay njuumte la te looloo ñu ngi koy tuub di ko naqarlu di wane ne dëkk bi yeyowu ko te li ci gën a farluwaat rek mooy ku ci nekk na nga yëgaat ne responsable nga ci sa kër say doom ak sa warugar ngay jël responsabilité mm, yar leen ci muñ yar leen ci mettit bu ñëwee sëñ Abdou Lahad wax na fii ba tàyyi ne dëkk bi atam kayit ga laa fi ñëw fekke naa fi bu ma gisee lu bu gisee luy tàkk duñu wax lu dul danoo jommi euh, bu nit dee sibet di ko joxe xaram sibet di ko sebet nit ñi dañ koy wër ngir bëgg ko naan mun naa leen duma leen mën a jox lépp li ci da dama koy jox samay xar kon métti tàng fi dañ ko doon muñ boo demee daaru muxti da ba koy sanc maam Cerno dégg naa ñu ne jigéen daana nekk manqué ndox jigéen daana boot doomam mu naa ko yaay damaa bëgg naan yaay damaa bëgg naan damaa bëgg naan amut lu mu ko jox ci ndox ba noonu la ko xale booba di faatoo li nu sëñ Saaliwu dénkoon nag loolu moo gën a jara itteel euh, seen ñaari biir yi leen seen borom wutal muy seen biiru bàmmeel ak seen biiru bopp na ngeen ittewoo seen biir bàmmeel ndax loo fa defut doo ko sa biir bopp yàlla mi la bind dana la ci defal dara lim doon metti metti ak coono bi doon metti la bis bu nekk ku xëy lekk nga naan nga ku xëy lekk nga naan nga kon yàlla moo nu yore responsabilité bi kon nanu jéem a àndaat wormaal dëkk bi xam ne sëñ Touba moo fi nekk sëñ Touba bii nga xamee ne ñaari xel ma dem sëñ dëkk bi ci Touba rek dëkk la boo xamante bu jara wormaal waxante la nag sëñ dëkk fi tëdd fi nag amaat beneen xiima bu mu amaat ak ñi ko daroon doon ko liggéeyal ñi ëpp ñëpp tëdd fi muy dëkk boo xamante ni la sëñ Abdou Lahad waxoon foo xamante ni fa sa yaakaar nekk fa sa kóoluteef nekk foofa kuy foddoo fa jëm kon dëkk bi nan ko warmaal nan ko waggar koo xamante ni booy dund fi nga bëgg a dunde booy dee fi nga bëgg a dee booy dekk fi nga bëgg a dekk kon foofa nag warma rek nga sekk ak moom sëñ Abdou Lahad nag la mu ko tëje woon dane man ñaara ma fi bàyyi sàmm ak wattu ak waggar loola nag lu ma ci man naa ko def kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal sëriñ taxaa suñu borom yàggal ko fi lool asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.